ndaka la ñuy def ba wéeral pas-pas yi wéetal borom bi moytu lépp luy bokkaale ñoo ngi woon ci ne ñaan jaamu yàlla la ñaan boo koy def yàlla rek nga koy def doo ko defal leneen lu dul borom bi tabaraka wa taala loolu jot nañ cee am ay waxtaan yu xaw a takku waaye bëggaguñ koo bàyyi ba tey dañ ciy bëgg a nekk ndax foofu jàngoro la joo xam ne dafa jar nag ñu taxaw ci faj ko ndax kat bu ñu waxantee dëgg nag jàngoro la ju tas ci société bi tey néew na nga gis nga mën a dugg ci dëkk ba génn fa te déggoo kuy ñaan di ci bokkaale borom bi tabaraka wa taala yàlla na la yàlla ak diw jox nangam walla may nangam loola moom ku koy dégg ci suñu réew danga nga yëg ne tas na fa ba ëpp li ko waral nag moo di ne xam-xam bi moo tàmbalee dem nit ñi jëmatuñ ci xam-xam ba pare it nag ñu fab ay mbir di ko yëkkati ba di ko teg ci palaasu yàlla yooyoo tax ba bokkaale gi tàmbalee di duggaat buñ ko gaawut nag taxaw wax ci jàngale ko faj ko dañuy dem ba mu jàgg ñu demaat ba doonaat société boo xam ne bokkaale rek daanaka moo fay am bokkaale moom bu tàmbalee dugg si moo feebaru cancer ñoo bokk atte ñoo bokk ñoo bokk nu ñuy tasaaroo cancer bu bu la xasee laal buñ ko gaawul dindi day mujj rek maanaam day gaañ nit ki bokkaale nag cancer la boo xam ne xol lay dal comme dal moom buñ ko gaawul faj sa xol bi lay yàq te bu ko xasee yàq mar tali moom boo ci faatoo cancer bu bokkaale moom ku ci faatu àjjana yàlla da koy araamal ci yow ñuy gën a leeral ne ñaan lu dul borom bi tabaraka wa bokkaale la suñ borom bi tabaraka wa taala wax ne wala tadcu maa allahi ilahan axar fa takuna min al muadabin nee na bul ñaan leneen lu dul yàlla comme niñ ko waxee woon ci commencement ba baatu du'a day firi ñaan di firi jaamu yàlla am na aaya yoo xam ne ñaar yépp la fay firi comme bu mel nii am yoo xam ne ñaan la fay firi waaye fum mu ñaan rek firi waale na ne jaamu yàlla ndax ñaan ci boppam ak jaamu yàlla la am foo xam ne jaamu yàlla la fay firi waaye booba it day dugalaale ñaan mbir mi ñaan mooy li gën a tuuti bokka eh, kii jaamu yàlla di gën a rëy mooy kër gu mag gi kër gu mag gi ñaan ab néeg la ci kon bépp aaya boo xam ne tudd na baatu du'a benn ñu jublu ca ñaan foofa ñaan ci boppam boobaa day dugalaale jaamu yàlla yi ci des parce que ñaan ak jaamu yàlla la mbaa muy firi jaamu yàlla booba day dugalaale ñaan ndax ñaan ci boppam ak jaamu la ci jaamu yàlla yi mbaa muy firi ñaar yépp suñ borom mi ne wala tad'u ma'a allahi ilahan axar bul jaamu bul ñaan beneen buur dul borom tabaaraka wa maanaam sag jaamu na nga ko jagleel yàlla kese ci booy ñaan bul ñaan keneen ku dul yàlla niki noonu yeneen xeetu jaamu yàlla yi bu ko defal keneen ku dul yàlla yonent bi lay waxal mu ne ko boo ko defee fa takuna min al mu'adhabin da nga bokk ci ñi mbugal kon foofu lu leer la ne ni képp koo xam ne yaa ngi bokkaale yàlla ci ñaan leneen lu yàlla dañ lay mbugal même bu doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wàllu bokkaale moom yàlla mayu ci kenn nga séq ci jéego jëm ca bu dee ab yonent nga bu dee ku baax nga bis boo séqi jéego lum tuuti tuuti di tàmbali di bokkaale borom bi tabaraka wa taala yàlla dafay lay wàccee dafa lay dàq génnee la ci yërmandeem moo tax mu wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko la in ashrakta yow yonente bi yow laay waxate bis boo bokkaalee la yaxbatanna amaluka say jëf yëpp danaa ko sippi wala takunanna min alxaasirin te da nga bokk ci ci ñiy perte bu dee loolu langage bu tar boobu moom la yàlla di wax ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ne ko boo bokkaalee nii laa lay def kon keneen kudul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxi nopp ñi nga xam ne it mayewul mayul kenn kenn benn mbindeef ci kaw suuf muy bokkaale borom tabaraka wa taala noonu la mayul kenn ñu di ko bokkaale moom borom bi nguuram gi da cee fiir yonenti beeg keneen a ci yem koo ci boole rek moom borom bi ko wa taala dana ko jëflanteeg yow ka nga cay boole benn moom mu nangu ko kooku ab bokkaalakat la moom ci boppam walla nanguwu ko mooy yow sa bopp yaa koy tooñ masalan yonent bi sallallahu alayhi ak képp ku baax képp ku baax laay wax heure boo ko bokkaalee yaa ngi koy tooñ ndax ku baax xam na ne li yàlla gën a bañ mooy ku koy bokkaaleeg nit ku koy bokkaaleeg dara kon yow ma jël ku baax di ko askanale bakkaar ba yàlla gën bañ xam nga ne yaa ngi tooñ kooka wallahi nit ñi buñ xamoon li nekk ci fopp ku baax di ko askanale bokkaale loolu xanaa xamuñ ni moo gën a garaaw sax nga jëloon ku baax kooku askanale ko ak njaaloo maanaam nga jël nit ku baax di ko tuumaal njaaloo moo gën a wayaf nga jël ko di ko tuumaal ne moom daa am lu mu bokk yàlla foog ay bokkaale di ko jox te tey ji ñépp xam nañ ne boo boo foboon kenn ku baax fii ne moom day dama dañ koy tuumaal ne moom daa def njaaloo léegi sa bakkan rot waaw pourquoi nit ñi di rëylu loolu buñ tuumaalee nit ku baax ne moom daa def loolu waaye nag buñ ko tuumaalee ne moom day day day tolloog borom bi tabaaraka wa taala ñu jàpp ne loolu ak yëkkati ko la déedéet loola suufeel kooka la maanaam borom bi képp koo yëkkati ba tàmbale di ko dendal ak yàlla rek yaa ngi koy yaa nga suufeel kooka ndax kooka day ab jaam rekk la boo xam ne moom ci boppam yàlla moo koy musal mu door a mucc yàllaa koy jox mu door a am yàlla moo koy wërsëgal moo koy xéewalal bu faatoo it dafa bëgg yàlla jéggal ko te bu ko yàlla jéggaloon musiba dal ko amul kenn kenn ci doomu aadama yi lu dul nii yàlla rek la mën a jéggal nga door a dugg àjjana yàlla la mën a yërëm nga door a dugg àjjana képp koo xam ne yàlla ci boppam xisaab na la ci say jëf boo moytuwul sawar nga jëm kenn mënut dugg àjjana ci ay jëfi boppam loolu yonent bi sallallahu ci boppam moo ko wax yàlla moo la yërëm ginnaaw bi ngay góorgóorloo nag mu door la ci dolli ak njéggal dolli la ci yërmaane nga mucc naka la ñuy fobe jaam boo xam ne nii la lotta ci kanam borom bi tabaraka wa taala yàlla bind ko moom ko comme ni mu la moomee inna alladina tad'una min dunillah ibadun amsalukum ñi ngeen di ñaan jaamu ñu dul yàlla tad'un ñi ngeen di ñaan ak di jaamu ñu dul yàlla ibaadun ay jaam lañ amsalukum comme yéen niñ la bindee noonu lañ ko bindee niñ la moomee noonu lañ ko noonu lañ la moomee loolu nga jël kooka nag di ko teg palaasu yàlla kooku yaa ngi tooñ kooku waaye yaa ngi tooñ nag borom bi tooñ goo xam ne tooñ gu dansé la goo xam ne moo gën a rëy ci tooñ yi moo tax jamono bi nga xam ne yaa ngi yëkkati nit ba di ko teg palaasu yàlla xam nga li nga def lu moo mooy ki nga xam ne dafa jënd ab jaamam moom ko moom ko ci këram moo koy jox muy lekk moo koy jox muy naan moo koy jox muy sol nga ñëw ci kër gi yow doon ab jaam yow it ci kër gi nga xam ne ñoom yow it dañ laa moom nga jël sa moroomum jaam ne ko léegi yaay toog palaasu sang bi yaa yow yaa yilif loolu xam nga ne tooñ nga sang booba te xam nga ne bu ko yëgee yow da dana da dana la teg ay daan yu metti kii nag li defa gën a rëy loolu xam nga lu defa yàlla la jël di ko yamaleeg jaamam yàlla maanaam buur bi ci màggaayam ci kaweem moom la jël yamale ko kan ab jaam ci ay jaamam kooku suufeel na borom bi tabaaraka wa taala looloo tax bokkaale ci yi gën a doy waar la bokk parce que borom bi nga suufeel te ñëpp xam nañ ni kilifa heure boo ko suufeelee boo moytul dana la teg loo xam ne du toog kii bu dee suñ kilifay àdduna yii Euh, saboté mbaa nga ñàkke ko kersa mbaa nga def ay jëf yoo xam ne day wane ne da nga koo suufeel boo moytul ma wan la boppam nga jël nag yow kan boroom bi tabaaraka wa taala ca màggaayam di ko yamaleek ay mbindeef subhanallah di yëkkati mbindeef di ko tagg naan mooy man mooy def mooy gindi mooy kii subhanallah borom bi nga yamaleek mbindeef looloo tax bokkaale dansé bi nga taawalee say loxo naan yàlla nga ma may yaat maanaam yow kon dangaa ngaa jàpp ne yàlla moomu moo kooku nga naan yaag ñoo bokk àtte ñoo tolloo ba nga xam ne ni yàllay defee di dindi kii noonu lay defee dindi ni yàllay joxe kii noonu lay joxe ni yàllay musale kii noonu lay musale kon yow yàlla nga yemalee ko jaam maanaam da nga koo bëgg a wax ne ko yàlla yow doyoo ma yàlla yow yoroo pouvoir lépp mul ko moom yoroo ko lépp ak doxalit mënu yoroo ko lépp am na ci sa jaam yi nga xam ne koo xam ne yaa ko bind waaye li ngay def yëpp mën na ko sa pouvoir yi nga yor yëpp man na ko subhanallah xam nga ne kooka lam def doy na waar rëy na tooñ la jéggi na dayoo te tey ji nit ñi ñi ngi demaat bay de bay àggaat foofu nit ñi ñi ngi de tey boo gisee ay nit jékki-jékki demaat sax ba sañ taxaw di wax yenn wax yi yoo xam ne lu wax yoo xam ne dangay tudd yàlla teg ci moom kàddu yu ñaaw ngir mën a yëkkati sawaay ci wet gi loola li ko indi mooy xam nga ne bokkaale dugg si bokkaale fu mu gën a dugg see rek nit ki day gën a suufeel borom bi borom bi day gën a maanaam da day ci xolam borom bi du fa am wàccuwaay ay nit wala ay ay ay bàyyi ma wala ay eh, ay bant wala ay suuf la fay teg di leen yëkkati maanaam da ngay fekk la loo loo xam ne du dara nga di ko yëkkati fekk nag borom bi ci boppam nga di ko suufeel loolu mooy tax bokkaale garaaw ci ab xol yàlla nañu yàlla musal ci bokkaale yàlla nañ yàlla def ñoo ñu bokk ci ñi nga xam ne buñ tàllalee suñuy loxo du ñu ñaan ku dul borom bi tabaaraka wa taala suñu gëm suñuy aajo borom bee ñu ko mën a fajal suñuy lor it bi moo ñu ko mën a fanqal yàlla nañ ko yàlla def ci suñu xol yi ba keroog ñu ciy faatu di taseeg moom subhanaka allahuma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk